maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne excellent ak jàmm ci chaîne YouTube bi di kàllaamay informatique tey nag dama leen a bëggoon woon nan ngeen di utiliser wala nan ngeen di jëfandikoo li ñuy woowee Google Drive Google Drive dafa nekk loo xam ne nii lu ama am solo la euh, képp koo xam ne nii maanaam da nga am ay document yoo xam ne nii da nga koo bëgg euh, maanaam denc fu euh, fu assuré daal foo xam ne nii soo ko soxlaa soo ko soxlaa heure boo ko soxlaa donc da ci mën a jot léegi Google Drive. pour nga euh, nan dem ci page bi topp ci présentation bi comme ni ma ko bindee nan ngeen ni fexe ba am Google Google Drive comment obtenir Google Drive Google Drive moom soo amee compte Gmail rek am nga Google Drive. parce que compte Gmail dafay ñëwaale ak euh, yeneen compte yu bari après loolu naa ni ko expliquer léegi nan dem fii ci euh, sama compte Gmail mi ngi ma ubbi nii léegi su ngeen ubbee seen su ngeen créé seen compte Gmail ba pare su ngeen créé seen compte Gmail ba pare. fii ñu bind fii nii mooy carré bi nga xam ne nii. fii la neuf boutons yi nekk nii comme ni ngeen ko gisee nii foofu ngeen di cliquer foofu ngeen fa cliquer gis ngeen yii yëpp ay application yoo xam ne day euh, dafa am compte dañ euh, bi nga créé sa compte Gmail dafa ñëw dafa ñëwaale ak sa kii lu mel ne YouTube lu mel ne euh, nu mu tuddati compte Google lu mel ne traduction yëpp ay ay kii yoo xam ne nii ay application yoo xam ne dafay àndaale ak sa compte Gmail loolu je pense que ñu bari war nañ ko xam léegi fii mooy fii ñu bind drive foofu la Google Drive nekk léegi des ce fait boo fa cliquer rek. application bii di Google Drive di ubbeeku waaw léegi nañ ko may temps mu ubbeeku voilà comme ni ngeen ko gisee nii lii mooy Google Drive léegi euh, man am naa ay fichiers yoo xam ne nii euh, def naa ko ci Google bi comme ni gisee nii ay ay fichiers yoo xam ne nii dama ko def ci sama Google Drive léegi nag euh, li mu lay permettre mooy comme ni ma ko bindee ci présentation bi nii nañ dem. comme ni ma ko bindee ci présentation bi nii maanaam Google Drive daf lay permettre nga mën a garder say say fichier ak say dossier ci li ñuy wax ay serveur de stockage Google maanaam euh, Google dafa am ay serveurs yu bari yoo xam ne dafa nekk ci àddina bi wërngal këpp maanaam loolu nag avantage bi mooy yow soo dencee sa Google euh, sa fichier wala sa dossier ci Google Drive euh, soxlawul ngay yor sa ordinateur ordinateur boo dem rek boo connecté woo ci sa compte Gmail comme ni ma leen ko expliqué da ngay dem sa Google Drive gis fa document yi nga xam ne nii yooyu nga gardé woon foofu ci sa Google Drive loolu mooy avantage bi nga xam ne moom dépendretul ci benn machine léegi machine boo xam ne nii wala même téléphone portable boo xam ne nii am na wala même téléphone portable boo xam ne am nga ci connexion mën nga dem dugg sa compte Gmail dugg sa compte Google euh, xool documents yi nga xam ne nii moom nga fa euh, moom nga fa denc pour mën koo jëfandikoo loolu je pense que loolu mooy avantage numéro un bi nga xam ne nii euh, <coughs> Google Drive lañ koy permettre léegi su fii nii maanaam Euh, comme ni ma ko bindee fii nii euh, comme Google Drive bi ñoo gisee nii maanaam euh, léegi bu nekkee da nga bëgg par exemple de télécharger benn ficher wala benn dossier fii ñu clique fii ñu bind lii version français la quoi léegi xaaral ma jëm ko traduire ma jëm ko maa ngi maa ngi koy jëm a indi en français pour ngeen gën a comprendre voilà léegi kii bi traduire naa ko en français comme ni ngeen gisee nii. léegi su ngeen ñëwee fii maanaam su ngeen bëggee par exemple télécharger benn benn kii benn dossier wala benn fichier fi ñu bind Nuvio foofu ngeen di foofu ngeen di euh, cliquer bu ngeen fi gis nga ni daf lay bindal importer un fichier wala importer un dossier comme fichier nag je pense que expliqué woon naa ko ci sama vidéo yi passé fichier mooy benn benn genre document tandis que bu dee dossier nag lu bari ay document yu bari lay lay lay lay regrouper daal maanaam mooy mooy nekk ci biir euh, loolu mooy différence bi su benn dossier wala benn fichier léegi fii nii soo cliquer importer euh, nga dem ci fi nga xam ne nii par exemple bu dee benn image benn photo nga bëgg a importer wala demee noonu léegi ñëw fii euh, daf ñuy ubbil image euh, ñu image laa bëgg a importer fii pour wan leen exemple rek. mën nañ ñëw fii image par exemple image bi laay jël voilà gis nga ni automatiquement mu importer image bi mu dugg sa sa ci nga xam image bi léegi mi ngi ci mi ngi ci Google Drive comme ni ma leen ko waxee bu dee bu dee fichier tamit noonu ngeen di def bu dee fichier euh, bu dee fichier par exemple da ngeen di ñëw fii ngeen euh, kii ko ngeen cliquer nouveau ngeen importer ko yomb na quoi en même temps tamit Google Drive avantage bi am bi gën a am tamit mooy mën nga ci créer document Word comme ni fi ñu bind Google mooy docu pour euh, pour boobu mën a benn document Word Google Sheet mooy boo bëggee créer benn document Excel Google Slide lii moo bëggee beneen benn document boo xam ne document présentation la Google Form mooy boo bëggee créer document boo xam ne day am formulaire boo xam ne nii eh, ki koy koy jëfandikoo day remplir ay ay information ci formulaire bi yooyu yëpp ay nga xam ne avantage yi vraiment dafa bari ba nga xam ne nii euh, je pense que sax du ma am temps pour expliquer leen ci vidéo bi léegi en même temps retourner li ma bëggoon li ma mujjoon li ma bëgg a mujj terminer mooy Euh, dossier bi nga yor par exemple document bi bu nekkee ne document dangay nga yor benn document boo xam par exemple euh, document Word la wala demee noonu par exemple bu nekkee ne da nga am benn document Word euh, boo bëggoon a par exemple boo bëggoon a kii par exemple léegi fii nan dem nan dem fii ma créer fii benn par exemple benn document Word. cliquer fii mu ñëw fii léegi boo cliquer boo cliquer boo cliquer fii benn document Word day génn fii bu ko defee fii mën nga fi créer mën nga fi créer benn document Word boo xam ne nii par exemple boo ko bëggoon a partager ak sa yeneen i xarit quoi moom laa leen bëggoon bu ngeen amee benn document wala dossier boo xam ne ngeen ko bëgg a nan ngeen koy defee quoi léegi fii ñu bind fichier foofu laay cliquer après ma créer ma cliquer ci. Euh, créer une copie après ma def test par exemple test voilà donc léegi document boobu créé naa ko léegi normalement fii bu ma ñëwee fii ci ci drive bu ma xoolee fii nii euh, bind fi test euh, test document test baa ngi nii léegi document bi nii su ma ko bëggoon a par exemple su ma ko bëggoon a nu mu su ma ko bëggoon a damay cliquer fii euh, man di mu def partager ma cliquer damay def clic droit après ma cliquer ci partager léegi su ma cliquer ci partager euh, par exemple avantage document boobu euh, avantage partage mooy mën naa ko partager mën naa ko partager par exemple. par exemple mën naa ko partager ak ñoo xam ne nii maa ngi seen adresse email par exemple ñu yor seen adresse email mën naa ko partager ak ñoom par exemple bois euh, da ngay dugal da ngay dugal adresse emailu nit ki par exemple euh, euh, nit ki par exemple ñu ngi tudd damay damay joxe exemple rek Mor Mor arobase point com par exemple. voilà léegi après nga nga bës entrée automatiquement kooku da ngay day day bokk ci kii nga xam ne léegi nag moom euh, su la neexee euh, man ko ci autorisation moom mën a éditer document bi par exemple bu bu boo boo coché fi éditeur cela jotee document bi dana ko mën a éditer su dee su dee euh, lecteur nga coché cela veut dire que Mor bu ko jotee lire document bi rek lay mën mais du ko mën a modifier su dee commentateur mën na ko commande mën na commenter document bi mais du ko mën a du ko mën a du ko mën a modifier daal. loolu aspect bu am importance la boo xam ne nii maanaam dana leen permettre ngeen mën a euh, en quelque sorte mën a mën a partager seen documents yi ak seen xarit yi nga xam ne ni par exemple da soit di ngeen ko war a modifier ensemble bu ko defee loolu avantage la bu am importance ci euh, Google Drive euh, loolu daal laa ne woon naa leen ko indi comme information pour ñi nga xam ne nii par exemple ñi ngi dégg Google Drive te xamul nañ koy jëfandikoo document yi ngeen am yëpp yi am solo yi ngeen am yëpp mën ngeen koy denc ci Google Drive comme euh, parce que dina leen permettre en quelque sorte euh, seen document yi ngeen mën koo euh, di ngeen mën koo di di mën a jëfandikoo ci machine boo xam ne ni bépp machine boo xam ne ni am na connexion internet loolu mooy avantage bi loolu laa ne woon naa ne ko nit comme information di leen jaajëfal yi ñëpp